sinon on allait être des des des, des hôtesses pour ne pas dire hôtesses euh, euh qu'est-ce qu'on peut retenir ci vaccin bii ñu tuddee ARN c'est la question qu'on se pose euh, parce que coow yu moom ba léegi dafa bëri euh, ci euh, Covid 19 bi heureusement am nañu quelques éléments de réponse quand même concernant vaccin boobu bijou maa ngi lay nuyu Pape di nuyu waa plateau yëpp ak ñi seetaan coow li bëri na dina continuer di bëri ndax dafa nekk feebar bu bees comme ni ñu koy waxee def na fi at ak lu topp waaye ba léegi ñi ngi jéem a xamante ak moom vaccin yi nag ñu ngi ko tuddee vaccin à ARN muy acide ribonucléide acide ribonucléide nag dafa niroog ADN bi nga xamante ne moom mooy lépp lu jëm ci information information génétique moom mooy déterminer ndax dangay gàtt dangay ngay njool bët yu bleu ngay am yu ñuul loolu yëpp sunu ADN moo koy déterminer bu ñu xoolee ARN bi nag moom dafay permettre ADN boobu mu produire protéines yi mu soxla léegi nag ci loolu la sukkandiku defar ay vaccin yoo xamante ne ni euh, dañuy jël euh, virus bi soit ñu atténuer ko maanaam ñu wàññi dooleem ba mu tuuti wala ñu désactiver ko maanaam ñu dindi ko dooleem carrément su ko defee dañ koy introduire suñu biir yaram bu ñu ko introduire nag suñu yaram bu gisee ni virus la euh, dafay defar ay anticorps ngir xeex ko euh, su xeexeek moom ba pare nag dafay tax anticorps yooyu des suñu biir yaram ba virus bi bu ñëwaatee bu ñu attaqué rek ñoom dina fekk ay soldats taxaw xeex ak moom mu gaaw génn euh, donc actuellement euh, chercheurs yëpp gu ñu lépp euh, ci biir vaccin boobu ndax comme ni ñu ko xamee vaccin d'habitude ça prend beaucoup de temps entre le fait ñu koy defar di ko tester ba bañ koy génnee mais bi dafa gaaw moo tax chercheurs yi maîtriser guñ données yooyu waaye nag ñoom lenn lañu gëm ñoom ñëpp efficace na vaccin yi pour protéger ñu contre Covid 19 bi mun nañu xool élément bi nga xam ne ne dem defal nañu ko ci. molécule ci lañuy sukkandiku kii mën naa fekk nit ki ci mbas mi di Covid 19. Euh, <laughs> voilà Pape Samba foo ci bouton yi. joué la ko jàppee voilà euh, mu ngoog yéen rek laay déglu waa ci ginnaaw noppi ngeen. très bien voilà merci euh, réalisateur bi moom euh, kii bi euh, xam naa bi mu nekkee xale dañ ko doon jëndal ay boutons yu bëri voilà donc ñu ngi gërëm bu baax ki ne dem moo ñu defal gëstu boobule ci vaccin yi donc on parle de soldats et tout ça mais en tout cas lii mooy euh, vaccin à à ARN N ARN voilà ARN wala vaccin à acide ribonucléique ARN voilà nekk vaccin yu nga xamante ne euh, ça fait à peu près une vingtaine d'années ñu commencé di ko di ko tester di ko dugal ci science bi. Mhm. Euh, ñu gis nu muy fonctionner ci suñu biir organisme. Mhm. Euh, comme ni ko Fatou Kiné waxee c'est pas parce que dañ la vacciner que da ngay wér ci. Euh, coronavirus bi en fait mhm. vaccin bi mhm. virus bi ci boppam la ñu jël wàññi dooleem bu baax a baax a baax a baax dugal ko mhm. suñu yaram suñu yaram xeex ak moom xàmmee ko ba bu duggaatee ñu dóoraat ko mu daanu ak suñu ay soldats yooyu ñu tuddee anticorps euh, conservation moom tam doon poser problème souvent ak transport bi ndaxte euh, vaccin même bu dul yii sax dee leen gis parfois vaccin yi ñuy vacciner suñu doom yi boo demee jënd ko pharmacie da ngay gis ne ci glace lañ la koy defaral ne la demal léegi nga dem vacciner wu ko donc il faut bien les conserver pour que mu mun que dafa nekk loo xamante ne dafa fragile gaaw a mun a yàqu euh, mais en attendant même bu fekkente ne miinaguñu carrément carrément vaccin bi ak technologie boobu mhm. lenn rek la ñu d'accord ak scientifique yi ci àdduna bi yëpp yëpp d'accord ko hmm. efficace na pourcentage yi nag dafay évoluer en fonction de yenn vaccin ñii 76 pour cent la ñii 90 pour cent mais pour le moment moo ñu mën a aar ci coronavirus bi Pape Cheikh. merci pour ces alertes chaque soir muy fenêtre santé euh, ci euh, li ñu tuddee euh, Covid 19 bi ñu ngi la ci gërëm bu baax Bijou si ak ndimbalu Fatou Kiné. Mm. qui n'est pas là aussi ce soir mais qui nous aide beaucoup ci contenu bu quartier général Talibé Cheikh.